Euh, jigéen ñi euh, buñ si njëkk moom mooy président Macky Sall démb dafa dalal ay jigéen boo dalal boo en tout cas dem na fu nga xamante ne foofu la jigéen yi nekk moom mooy euh, théâtre grand théâtre ak jigéen ñu bëri ànd ak soxna Marème Faye Sall foofu nag jigéen ñu bëri ñëwoon nañ fa Euh, ngir euh, ci lu nga xamante ni moo jëm ci wàllum euh, entrepreneuriat ak jigéen ñi ñu mën a def ngir mën a suqaliku di liggéey ngir mën daan seen doole ci comme anam yi nga xamante ni noonu la waree thème bi nga xamante ni moom mooy thème bu soxal année bi at mi ci jigéen ñi moom mooy àdduna boo xamante ni jigéen ñi dinañ leen mën boole ñoom ñu mën soobu si xarale yees yi mm-hmm. di ci ci mën di ci mën liggéey président ki Sall nag euh, def na fa ay proposition wax na jigéen ñi dinañ leen gën a ñaaxaat euh, ñu doole leen euh, ba nga xamante ni ku nekk dina ci mën a gis sa bopp faneen foo xamante ni jigéen la ñuy wax wante laneen la moom mooy Aminata Touré ñu nga xamante ne ñoom ñooy ndaw yi Aminata Touré yi dañu tontu ñi nga xam ñooy ndaw PDS yi parce Euh, démb ndawi PDS yi dañu génn tontu ki nga xamante ne Aminata Touré le 3 mars dafa bindoon benn bataaxal jëmale ko ci PDS ni PDS ñoom dañuy lëkkaloo ak président Macky Sall di koy nëbb bëgguñu kenn euh, daal koy gis euh, ndawi PDS yi génn tamit tontu leen démb ñi nga xamante ñoo tofu ci euh, ginnaaw Aminata Touré di ay ndaw aussi wax ni PDS li Aminata Touré wax euh, dëgg peng la kenn mënu ko weddi ndaxte assemblée nationale def nañ fi ay projet de loi yoo xamante ni président Macky Sall moo ko initié waa PDS dañ ko voté euh, beneen bi tamit moom mooy benn enquête bu nga xamante ne jëm ci mbirum Covid bi boobu ba léegi waa PDS opposition bi dañu jël décision. ne dañuy teg benn kuréel boo xam day saytu mbir bi mais PDS ñoom àdduwuñu si euh, ci laneen loo xamante ni PDS ànduñu si ndaw yi fësal ko aussi tamit moom mooy ne mbirum troisième mandat mosuñoo dégg kenn ku bokk ci PDS mm-hmm. euh, di koy wax euh, loolu day firndeel ni rek ñoom li Aminata Touré wax dëgg la dañuy diloo ak ki nga xamante ni moo di moo di moo di président Macky Sall ku jige président Macky Sall di Idrissa Seck démb Idrissa Seck nekk président 16 Euh, mooy kuréel gi nga xamante ne moom mooy xelal euh, institution yi si wàllum euh, koom ak si wàllum dëkkin ñoom président Idriss Seck ak ay ñu muy liggéeyandool dafa waxtaan amul waxtaan ak ñoom lu mu fa yëkkati nag comme si ay kàddu mu nekk ci at mi ndaje bu njëkk moom mooy dafa wax ci mbirum Euh, mbirum euh, yokkute njëg gi. Mhm. Euh, di soxal sénégalais yi ba pare tamit jéem a fexe ba nit ñi nga xamante ne dinañ mën a dañ leen mën a yaxanal li nga xamante ne moom la ñuy dundee ñu mën ko saytu te moom nee na dina def lépp kéem kàttanam ngir décision yi nga xamante ne jël na ko foofu ñu jox ko ñi nga jëm ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy waaye ñoom ñooy waa gouvernement bi. waaw loolu nag moom moo fa moo fa xewoon bon xanaa li su doy waar rek moom mooy bon dafa bàyyi ba élection yi di waaj ñëw muy <laughs> doog a muy doog a def loolu Euh, beneen xibaar bu jëm si wàllu politique mooy Cheikh Yérim Seck. Uh-huh. Euh, Cheikh Yérim Seck moom euh, ginnaaw bu mu bindee livre bi defoon coow lu bëri moom tamit mu dem mel ni kuy sóobu ci beneen coow coow li Hadjibou Soumaré moom moo ko sumb ginnaaw bu mu tegee ñeenti laaj jëmmale ko ci président Macky Sall ndax Macky ndax président Macky Sall di koy laaj dafa jox xaalis ki nga xamante ni moo di opposante. Marine Le Pen Cheikh Yérim Seck euh, ne euh, Hadjibou Soumaré moom lu mu wax euh, dafa rëy wante Hadjibou Soumaré kenn waru koo xarab ci dara ndaxte loolu moo xew ci dëkk bi lenn rek la la la Hadjibou sumaare def mooy dafa toppandoo ñi nga xamante ne ñoo nekk ci waa Pastef ñoom noonu la ñuy def waa Pastef ne lu mu ko tuddee nag mooy sonkolit Euh, nee na ñoom euh, loolu la ñuy def mooy génn rek xamoo fu dëkk bi di rii ngay wax te li ngay wax xamoo si dara euh, moom mu ne Cheikh Yérim Seck euh, Cheikh Hadjibou Soumaré lu mu waroon def comme que moom euh, nitu état la. Mhm. yàgg na ci état nit ku responsable la warul topp ñeen ñi nga xamante ne ay saaga ak ay yu ñàkk fayda moo leen tax a jug lu mu war a def rek moom mooy euh, jéem a def ngir feeñal dëgg lu muy wax dëgg lal ko bañ a topp rek di dénoncer ndaxte dafa bëgg a nekk candidat ci élection présidentielle yu yu yu yu 2024 muy mel ne rek rek Cheikh Yérim Seck moom dafa sóobu si beneen coow boo xamante ne euh, waaw peut-être dara yoonam nekku si. est-ce que coowam la. <laughs> alors ñu jeex merci beaucoup. Euh, Pape ñu jaajëfal euh, bu baax a baax en tout cas. Euh, lu ma ah gis ci info yi <laughs> depuis lors euh. depuis euh, Hadjibou Soumaré def cette lettre def ci quatre questions posées ko le président de la République son excellence Macky Sall depuis lors ñu ma gis ñu ci wax yëpp ay ñoom Abdou Karim Fofana mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen je pense que ndayu mbili ci moom moo ci war a yëkkati ay kàddu wala dama juum. xam nga su may reproché Cheikh Hadjibou Soumaré mooy lan laa koy reproché. Mm-hmm. comme ñeenee nañu loolu amul si parce que boo xoolee ci ñetti ponk yi ñoom. indi tontu benn tontu rek lañu benn rek lañu tontu. Mhm. si ñeenti léegi nag comme ñoo ñoom nee nañu loolu amul moom miy wax ne daf ko dégg na na indi leeral cest à dafa junjoon rek ay question la posé woon ñee nee nañu loolu amul moom bu fekkee am na lu mu yor lu mun a lu mu mën a teg ci askan bi nañu ko indil bëgg nañ ko xam. léegi nag. moo gën mu gën gën di di di def. dans dans dans dans le vide en fait c'est dans le parabole comme ça di di di di di insinuer. parce que ay insinuation la doon def yoo xam ne tey jii ñoom nee nañu amul léegi nag bu fekkee am na lu mu yor ci loxo bi sinon bu fekkee amuloon dara lu mu ko defoon rek pour coup de buzz aussi boobu je serai très désolé pour loolu on attend que mu indi dara. léegi man lu mu mën a tuuti rek en trente secondes. Mhm. Cheikh Yérim Seck il est mal placé pour wax dara Cheikh Hadjibou Soumaré parce que li mu li ba léegi Cheikh Hadjibou Soumaré man liir naa intégralement communiqué bi gisuma fu mu saagawee. gisuma fu mu ñàkkee wor ma gisuma fu mu ñàkkee te il a juste posé des questions il a juste interpellé sur des sujets yu mu yu mu yu mu dégg les gens ont répondu c'est ça oui. les gens ont répondu maintenant Euh, attaque bu personnel boobu yëpp nit ñi les gens dañu tàmm loolu léegi Sénégal dañuy ñëw au lieu que ñu dem dans l' essentiel da ngay sekk nit ki sax affaire politique nga bàyyi politique fa li dem dugg ci vie privée wala di dem di jéem a def ay attaque personnelle kooku c' est trop petit de la part de Cheikh Yirim Seck alors te moom tamu am na nag lu ñu ko war a kii il traîne des casseroles donc il a qu'à de de nekk fii ku nekk mu bokk ko nekk di song moom am na lu ñu war a wax ci moom mu bàyyi potam fële di ñëw lijjanti paanu jaam il faut qu'il arrête ça. <laughs> bon man si peut-être si affaire bu mooy bon du may virulent comme comme Kajoor lu mu ko defee mais peut-être benn constat rek. que bon damay reprendre lu mu wax Cheikh euh, Cheikh Hadjibou Soumaré moom ay question la posé quoi nit yu bëree ñu ngi wax euh, dinaan dafa accuser mais dafa poser ay questions. et puis de façon très polie si bu fekkee liir nga kii bi de façon très polie. et puis je me dis que c'est son droit léegi nag question yooyu am na lu mu làq moom mooy dafa poser ay questions ba pare derrière di insinuer euh, ne am na ay mbir. Mhm. donc loolu pour man leerul. parce que bu fekkee da ngay poser ay question da ngay poser ay question directement mais doo poser ay question ba pare derrière ngay def yoo xamante ne euh, day wane ni yow da nga xam dara lool moo tax c'est difficile euh, ñi koy wax ne ko boo nga andi ay preuve wala lu nga am nga génnee ko ce sera un peu difficile de son de son côté bon pour pour si Cheikh Yérim bon pour man il est un peu dans son rôle quoi. de journaliste. Euh, je sais pas pas je parce que tout le monde na waxuma waxu journaliste mais. dans son euh, de journaliste. non genre wax li nga xamante ne pour nit yi tudd la affaire yooyu noonu. moom ah, bon voilà euh, peut-être bon il est un peu donc euh, livre bi moom temps peut-être jeex na donc comme que gis beneen bruit donc mu bëgg si dëgg profiter waale amaat ci amaat ci kii quoi bon peut-être loolu man noonu laa gisee ah. <laughs> la bu baax a baax ci li nga xamante nii moo di la revue euh, politico économique en tout cas bu ñu desee ci ponk boobu nga xam ne depuis un moment euh, mu ngi def un peu la polémique euh, sur la toile dañuy wax rek Cheikh Adjibou Soumaré moom aussi bu amee lu ko gën a leer ci mbir mi mu wax ko mm-hmm. parce que tey nga ñëw rek ne est-ce que joxoo kii di Marie Le Pen valeur 7 milliards. ci mm. xaalis. c'est-à-dire boo waxee loolu rek. am na loo dégg. Euh. wala am na luñ la dégg. et puis lu gën bizarre moom mooy si affaire bi mooy Cheikh Hadjibou rek kenn xamoo ko ay euh, ay déclaration affaire yooyu noonu. ay waxam affection c'est un c'est un homme politique bu nga xamante ne bon il a un parcours exceptionnel def dem na. Euh, Union africaine def UEMOA en fait c'est un grand commis de l'État quoi ouais. comme comme on connaissait avant donc Euh, mën nañu wax ne am nañu njoxte ne moom dafa bëgg nekk ah, euh, candidat donc loolu moom moo tax muy génnee euh, muy génne yenn affaires yi mais man mm, bon man xaw na ma bett parce que bon kenn xamee ko woon ay wax quoi donc voilà loolu loolu moom aussi xaw a jaaxal d'accord merci Pape merci Kadior ci information yi alors dañuy enchaîner léegi-léegi rek dalal sunu gan mais avant cela dañuy sargal képp kuy jigéen nga xamante ni yaa ngi liggéeyee fii ci 7TV Kadior ñu di ci jiital ki nga